tuuti ñu déglu ko li ma ci yokk rek moy man je constate juste que au Sénégal maintenant c'est comme un tournoi ou bien un championnat des clubs ay club mm. politique yo xamantene dañuy nekk souvent en vogue nekk ca kaw du tableau des fois ñu relégué leen division inférieure des fois ñu góorgóorluwaat ñu pour dire quoi pour dire que les constat bi ngay jël rek moy c'est le Sénégalais qui perd dans tout ça mm. Parce que ce qui est arrivé à Bartley Diaz, New York, nous avons L29 et L30. Nous sommes d'une fille. Et si vous faites que vous avez des choses, vous avez des en 2027, Bartley Diaz n'a le liste qui fait inscrire. Ce n'est plus possible. Hmm. Maintenant, cette conditionnalité-là, nous avons obstrué, nous avons dit qu'il était maire ou pas. Parce que, je vous dis, volonté, hmm. Macky Sall, je vous dis, le décret de révocation. Et je vous ci diggante bi parce que bari na fi yu fi xew rajee na fi lépp ci décision lay maintenant le BART de 2012 le BART de 2019 et le BART de 2023 c'est trois Barthélémy différents. Ah si on ose le dire. et, après trois procédures différentes. différentes. aussi dire BART amna na Barthélemy boo xamante ni na ba il ne lésiné. way nangul ñu n'angul nanguwoo ñu téye. may quoi <laughs> Barthélemy wax gi non la. donon na Barthélemy bo xamantene il ne lésiné pas sur les moyens. et quand je dis des moyens mooy les armes non conventionnelles. Mm-hmm. la fois sax ngëm-ngëm sax mom bañu woon ko utiliser la preuve. Euh, arrêté nañ fi Guimari Marius Sagna moom mu génn wax né la catholique tax ñu téye ci kasso mm-hmm. donc il est allé très loin maintenant ce Bartlemy Bobo mon nekkoon Bartlemy bi nga xamante ba Sonko Sonko di def son syncope là ca ca ca tribune ba fofu ca région de Ziguinchor mais mo gëna a ba muy yegg si sax garde corps yi ci wuñu ñeu japp ko té ko donc dafa am fa doon wolé booba nak c'était l'ennemi de l'appareil politique de l'État sans amul sax demal ma ñeu <laughs> parce que ñom ils sont passés d'amour à ennemi et en amour à la fin mm-hmm. au début ils étaient dans un cercle amoureux ñom ñep ñu bokk ñu dem ba ci bir nous lever l'immunité parlementaire ni ko Bachir waxee ñu dem nag ci bi ñu la maintenant hmm. ndax moom dafa calculer ne loolu fa la parce que quoi qu'on puisse dire Diagne hmm. gis nga tooxi duuna yooyu bu tegee ci sa ala hmm. arme fameuse 9

benn laa jàpp ne ñàkk nañ ko jamonoy électoral la woon muy en 2019 ci li ma jàpp mm-hmm. ak bañ leen di gagné dans le département de Dakar mm-hmm. mais à loolu moom li ñu doon defee razzia sax dafa ëpp maintenant li nga ciy rek mooy muy côté muy Sonko dafa am différence jamono ji mm-hmm. Sonko moo ëpp jàmm ci digganteem ak Macky Sall que Barthélemy te loolu mooy dëgg parce que tey Macky Sall su ko neexee li alterné bii ñu ñëw ay sa tal Sall day daal di jël article 61 nako ko ci euh, tamit règlement intérieur 51 mm-hmm. na na jóg bu jógee mm-hmm. ñu ne ko léegi ñun on va interpréter le droit parce que le droit est toujours mm-hmm. interprété léegi nag cette cette interprétation du droit nak c'est fofu la nag la coow li ne c'est-à-dire arme boobu le politiciens yi téye ba fu leen neex ñu jaar seen jaan et pour preuve ñu wax décision de justice tay nako état appliqué mm. Mais l'État n'est pas tenu, elle a pour preuve. Je te donne un cas, un cas élémentaire. Les 690 élèves maîtres, mm. on s'en rappelle. Oui. Mais Céline Mbaye a constaté une fraude, mm-hmm. def arrêté, mm-hmm. mais génne sur 2000 et quelques qui vont concourir. nous mm-hmm. nous dem cour suprême. suprême cour suprême la professeur euh, le ministre vous pouvez donner. des sanctions allant dans un cadre disciplinaire. C'est vos prérogatives. Mhm. Vous pouvez constater une fraude, mais vous mhm. ne pouvez pas sanctionner une fraude. Ça mhm. relève du droit, ça relève de la justice. Donc votre arrêté est nul. Nul et anéanti. Et non, non. Mais est-ce que... Euh, euh, euh, euh de taxaw nañ ne décision de justice bi dafa état appliqué. non non non parce que bu fekkee les parce que c' ça le principe du privilège du préalable. du préalable loolu état da koy am. fa doon jëm tout à fait. loolu c' est droit. non mais droit li ma ci mën a gasax rek la. non sëñ Diagne sëñ doon droit non du doon droit non du doon droit man ma ne ko doon dañ koy jàngale école lycée. man ah, bu ma déglu waaw dañ koy jàngalee lycée ne. non doo soxlawul appliqué da nga war a xam appliqué. nen nen la baal ma baal ma nen du nen. ça dépend suñu société non. xoolal suñu société dafa mm-hmm. mës a am droit. Mm-hmm. même ñun ci suñu cosaan ñun ni ñu formé wu. Mm-hmm. dafa am droit. nit ñi dañoo mës a dox ci yoon. am kaddu. waaw mais droit bi. xam nga droit boobu sax objectif de conscience bu nekk. yow ci sa bopp yow yaa koy doon ci sa bopp. effectivement. dañ naan kër gii nañ fi def garab fii ñu ñu koy xoolee diw. ñu mm-hmm. jógee ku xool garab bi fàttaliku ne kër gii borom joma fi. dëkk waaw moo fi wàcc moo fi sàng et cetera et cetera baat bi gën a rëy moo doon mbedd mbedd buur la mhm. loolu droit mënu ko féete kaw mooy looy def ci xamadi looy def ci ci yàq na yem sa biir kër mhm. lén na ci biti rek buuram ci biir loolu dañ ko transvertir ba <laughs> dañ ko travestir ba léegi dañoo jàppale def la la neex loolu la baat bi da mhm. Abdoulaye bi ko notre doyen Momar Diom di poser la question par rapport bi la euh, roi du Maroc bi ñëw ñuy dindi ces marchands ambulants là dans les ruelles de Dakar et que tax ñu xaar ba instant est-ce que nous sommes comme def mu constant mais pas euh, pour le pour tout à fait d'accord mais même si le ministre de l'intérieur prend certaines décisions il ne vient pas me demander autorisation et en plus il dit une phrase qui est importante Moi, est-ce que la liberté individuelle doit prévaloir sur la liberté collective ah, et c'est ça là, c'est le droit de fumer ne vous donne pas le droit d'en fumer. Même si vous êtes 200, vous voulez suivre son cours sur la route, vous êtes libre. Mm-hmm. Mais est-ce que en étant 200 ou 2000, vous donne le droit de me bloquer, moi qui suis une seule personne, ni ñëpp ñoo ma doxee yeneen yeneen yëf. Mm-hmm. préfet bi ne du parce que mon il sent que man boo yéen votre démarche man ça me mettra en danger mm-hmm. mais la logique du droit moi, mu tere mais comme pour applicable pour tout le monde. non je loolu nag mais pour pour applicable pour tout le monde man d' d'accord non su que dañoo à un niveau. mais pour c'est ko fekk daal sélectif ça. merci beaucoup la mm-hmm. parce que tay Macky Sall nii néna naa la ba mi bëgg dem di jàngi Italie Trento ci histoire ci lu ñu bari xamul waaye am bourse bursam war a defi troisième cycle waajuram mu jigéen defaral ko beñe mu def ko ci mbuus tëdd kontaan di waxtaan ak xaritam politique moo taxoon mu ñàkk ko moo tax mu ñàkkoon bourse bi bourse bi boobu les socialistes dañoo dal ci kaw Manqueur, même chose, il raconte dans son livre, c'est 20 ans de diplomatie, mhm. que mm en tant que euh, PAI ak nangam à l'époque ba devez def concours fii ENA mhm. il ne il ne il ne pensait pas que vous devez concours vous tout le monde ko sélectionné ak nu parce que bon euh, euh, nous mu déjà Jean moins moo mooy mooy tànn meilleure gestion et cetera etc donc ça a toujours ça a toujours existé mhm. maintenant ce qui est dommage moi et dommageable

Idi poussé dem fekki euh, maki une chose que beaucoup d' observateurs oublient inintelligente mm. parce que moom la waroon a doon c' était mm. logique Sonko ci kanam coow yëpp teew ba ci coowu Adji Sarr bi ngay wax mm. maintenant coowu Adji Sarr duma ci sax dugg mais verdict boobu ngay wax contumace bi li ñu xam ci droit te nampatal ko mooy contumax même bu fekkee ne àtte nañ la te gisuñ ne saa bu ñu la jàppee ah. contumax ba dafay tëb kon loolu moom de nature loolu la nit ñi miin maintenant xam nga droit ni ko Bachir waxee moi, am ay gymnastique extraordinaire yoo xamante ne yow mi toog fii ni ngay àttee ne max mooy ki ñu juge bi du ko déggee parce que la parole elle est singulière même si elle est elle est en droit mais c'est l'interprétation elle est toujours plurielle mhm. juge je juge la personne qui est devant moi dans le tribunal et mes services de renseignement ou les enquêteurs s'ils me disent que la personne bi ma war juger il ne vient pas wala on le trouve pas il le il peut considérer que cette situation de monte Même sachant que le monde, dans autre chose qui est le droit, même il sait bel et bien en suivant l'opinion publique que... Qu'on va dire barricade chez lui mais dans la trajectoire du droit ni ñu ko bindee. exactement ni ñu demee mom daf koy considérer comme un ah. pour deux choses. Mm-hmm. non seulement parce qu'ils ont des éléments d'enquête que nous ne disposons pas deux choses la première. Mm-hmm. moi, Ousmane c'était à cette époque le faire sortir l'arracher de chez lui pouvait créer des dégâts incommensurables. il faut que Ousmane Sonko cité que góor gi ko tribunal mais mënoon na mais jéyee ne état pas. Mm-hmm. régulation sociale lañ def nak ngi ah mangi ñoo xam nga man joxul joxuma leen dëgg. damay damay commenter les faits maintenant biñ nattee loolu ba daan ko da nga naan sax yow jo parce que boobu nit ñi sonn nañ ci yàq yi. maintenant ndax jaar na yoon wala jaarul yoon mooy li ma la wax dama jàpp ba tey politique bi léegi ay ay tournoi la compétition la. club bu ne da nga tamit tifosi hmm. ñoo il gère la cadence l'harmonie yuuxu ak gérer bi ak gëlëmal bi nga xam ne léegi nag moo xew ba tey pour nga xam dëgg-dëgg sax ngay wut foo jaar ba xool diggante li nga xam ne daal moo gën a leer mooy di nga seetlu ne am na ku ñuy jaay doole te ki koy jaay doole mooy nguur mën nga koo mën nga faa teg sa loxo sañ ko ndax nag am na ci yëf yi fu ñu koy yóbbu foo xamante ne lu mu doon doon droit da nga naan waaye nag yërëm ko parce que booy dóor nit sax ba mujj bi yuuxootul da war ngaa taxaw booy xool ndax ma ngay noyyi faatu na wala faatu. man bok ci gis-gis bobu la ci am fi may tëjee tamit ci Barthélemy so mako maye hmm. moy da ngay xol Bachir li mu wax sank convoqué nañ ko dara yënguwul té pourtant il s'est toujours postulé comme le héros. Hmm. mais est-ce que le héros ne s'est pas transformé en autre l'autre mot héros H E accent aigu R A U T. Hmm. <laughs> qui signifie que yaay dox ndawal bour bu xex amé yaa koy wax yaay commissionnaire. est-ce parce que loolu la réalité bi wane. héros biñ doon xaar ci mom héros bi kan la. Death Square nangu héros bi da koy dégg dañ koy yuuxu ci stade yi mm. héros yi dañ koy yuuxu ci car yi héros yi dañ koy moom ñu wax nañ la kooku nag kooku nag kon dans tout état de cause ak lu mën a xew boo fekkee tey statut héros war naa am kooku moo ko moom logique pour logique mais tey fi li ngay jàngal rek mooy cour suprême encore une fois il va décider si loo xamante ne tey mu jëntal ko yëpp mm. nu mu tëdd xamoon mi doon histoire dañ koy fàttali mm. parce que ñi fi nekk ñëpp dañuy àndaat. c'est très important nag. Macky Sall mii bis bu yoratul nguur gi mais buy toog Ousmane Sonko ñuy waxtaan wala mu koy Yalla fekk mu génn wala bu génnul sax da na ko seeti parce que ay enjeu la ennemi tay ñoy nekk ay adverse ñoy nekk ay xarit ëllëg. parce que politique mo bindo noonu. tu as toujours besoin de bras valides te Sonko il restera éternellement un des des bras valides. yàlla yàlla doon nañu fi ak Sonko. mais tout à fait. loolu gis tey ñu ngi bëgg ñu ngi bëgg a mel ni mburoog soow. waaw léegi de moom ñu ngi bëgg mel laa ah, wax ñu ngi bëgg mel. ah Aïssatou ñu ngi bëgg mel man man am na loo ma def. waaw d'accord waaw supposé la ñi ngi bëgg a mel nekk nekk euh, mel euh, nekk benn. waaw très rapidement ñu ñu am tuuti rek euh, réaction.